continuer leen dama ko teg rek. déedéet continuer leen. amande. capoteel rek. continuer leen. wax ji am xorom. Ah, mhm. mhm. hmm. mhm. ah. mu ne maa ko déglu ba ma ko dégloo it moom it la aje wax la ma wax. grand baa après duñ ci am problème duñ ñun yi mu ne boo ñëwee ñu ne dañ la violé. Mhm. yegg sa kaw. Mhm. ñun dañu am fu ñu la yóbbu hôpital principal. alaay déglu de. Mhm. man en tant que capitaine ma jël sama benn élément. boole kook aji saar. di ko yóbbu ko fi ñu daan yóbbu ñeneen ñi hôpital principal. à grande surprise nag. ba ñu dellu siwaatee kayit yi ñu indi CTO laa ci gis. ok j'ai demandé à lu xew quoi. entre temps ci diggante bi. au lieu nga yóbbu xale bi principal ñun foofu lañ am habitude di yóbbu. nga mu teree ji CTO. lu ko fa yóbbu. waaw mu ne bi ñu daal ñu ànd ak moom ñoo ne médecin bi moom moo koy topp di ko suivre xaw ma lan ak lan man tam ma topp leen. dégg nga. ñi ñu ànd kon du woon ñoom ñaari kese. Euh, dem nañ daal. ok. dégg nga loolu prélèvement xam naa ne mbedd maa ngi ne ma de waaye. prélèvement yañ def ca gone ga. Mhm. ba mu yeggee ba waa kër docteur xool ko. Mhm. moom daal boo bëggee dégg dëgg. Mhm. boo ne dañ la violé nag. résultat. ya seet ñoom. ak résultat woo xam ne ab alaxam moo ko seet ca àll ba mantulaay. boobu du am crédibilité ci ñoom de. du loolu la wax moo tax mu ne. li ñu seet ci gone gi. moom daal. avant muy def déposition ah loolu daanaka entre guillemets valable. voilà ci nga wàcc ñëw ci suuf. ci da ngaa xamoon Sonko waa wala déet. bu mhm. fi tontu na ci. Ndeye Khady Ndiaye alaaji tontu na ca borom salon ba. ci même ci question yi. waaw waaw. Mhm. téema koo teg wala ma sapote. continuel. li ngay sapote yi dina xarale. procureur de la république ne. Mm. borom salon bi ci boppam. Mm. nañ leen ko déglu. Mm. ñu koy déglu. kooku ki mu jur juróom-ñaari weer la am prématuré. gone ga mënta génn fi mu ne. nga. commandant bi ne ko kon fekki ko. hôpital Fann. fa la ko dégloo. Fann. dellu si waat procureur ne mhm. nañ leen ko dem jëli ñëw garde à vue ko. Mhm. médecin yi ne xale bii mënta nàmp meew artificiel yi ñuy defar meewu ndeyam rek. la mën a nàmp waaw xale bi mën ta génn ci ngelaw li te ndeyam procureur nee na dikk commande naa ci mbaaxam waxaat ko procureur alaaji mhm. procureur ne ko mhm. yow sa xolu yërmande yi nga war a bàyyi demal jëli ko mhm. commandant bi nag bi kaw gàttal daal dama koo gàttal nag ndax wax ji dafa xaw a kii gudd. compliqué. waaw daal bokk na ci limu wax ci dossier bi ah. dégg xanaa lii kay mën naa koo dugal nag. waaw dugal waaw dugal la. na dugg. Soumaire ana capitaine mbokk yi nag euh, tey ñu ngi nii seq kon euh, waxtaan ak euh, la capitaine Oumar Touré. officier wu gendarmerie nekk tamit euh, section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane moo capitaine maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay tontu. laaj bi nga xam ne nag euh, dañ la koy laaj daal toog nañu ba dégg ne da nga tekk sa ndomba tànk te ñu ne dossier wu xale bu jigéen bii di Adji Sarr ak président Ousmane Sonko yow lañ ko joxoon lan moo waral nga tekki sa ndomba tànk. effectivement Mohamed da nga may permettre. ma nuyu Sénégalais surtout ma nuyu sama maam Koumba Touré xam ne. mu ngi village. maa ngi nuyu aussi sama pap ak sama yaay. comme je vous dis il y a de cela huit ans je suis à la gendarmerie je suis officier de gendarmerie. voilà j'ai fait deux ans à la section de recherche. durant les deux années que j'ai fait à la section de recherche. j'ai rédigé ou corrigé plus de mille cinq cents procès verbaux. malheureusement je tiens à témoin ceux qui sont à la section de recherche malheureusement c'est l'affaire dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité Donc ce qui fait que aujourd'hui je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour ñu yegg ko mais bii moo tax ñu may topp ñu may déglu ñu muy xool samay déplacement en fait gis nga balaa may egg si lii gis naa dem naa rencontrer sama commandant ma expliqué ko ne ko mon commandant moom xam na ma il me connaît très bien il a entièrement confiance en moi et ça je le sais Et je sais que là, actuellement, combien un mois. Quand je vous donne ma parole, je la tiens. gars yi ñu ngi may topp te ni ñu may toppee xam naa ne dañuy déglu parce que dañuy anticiper samay mouvement donc si continue comme ça je vais démissionner moi j'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible c'est-à-dire man sama principe mooy la crédibilité donc je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible je le suis point maintenant je voudrais expliquer la raison de de cette démission. xam nga lu tax ma jël décision wax ak sénégalais mm-hmm. bu ma publier sama démission sama page Facebook ay autorité gendarmerie woo nañu ma li ma ne mun nga wax ne que yow sa page Facebook que dañ ko piraté. c'est pas le haut commandant qui m'a appelé ni le c'est des autorités avec qui j'ai de très bonnes relations ñu ne ma mun nga wax ne dañoo piraté sa compte ma ne ko non ça c'est moi qui l'ai écrit. xam nga je vous disais que. en un certain moment je me sentais donc c'était c'était mon honneur qui était remis en jeu parce que bu ñu ma woowee di ma wax ne naa wax ne que dañu pirater sama compte ma ne non je ne dirai pas ça parce que lii man maa ko bind mais ba léegi waxuma dara mais lendemain bi mooy le lundi on m'a informé que dafa am benn docteur bu ñëw sama bureau pour constater ne que j'étais en état de démence cest à dama def quoi pour xool waaw gis nga loolu pour man c'est remettre en cause même euh, l'intégrité de la gendarmerie am nga booy xeexal dara bul won ñi ñi Sénégal bu ñu ñu xamee foo dem doo fa egg donc il faut créer ce qu'on la diversion je suis parti à Touba mais là l'objectif de cette vidéo c'était pas pour faire croire aux Anglais c'était pour faire croire aux chercher à Touba xam naa foofu lañ may wër bu ma leen waxee ne maa ngi Touba donc c'était ça l'objectif la vidéo léegi ñi ma doon topp mooy waa renseignement il euh, y a ce qu'on appelle les renseignements c'est-à-dire je voudrais pas trop dama bëggul aussi dem ba divulguer beaucoup de choses mais xamal ne c'est Sénégal qui engagé des personnes ñoo xam ne ils ñu may topp c'est-à-dire pour voir am nga affaire boobu fu mu jógee c'est quand le procès verbal de Adji Sarr a fuité cest bu ma defee sama enquête ba pare man ak commandant Abdou Mbengue xam nga commandant Abdou buy def enquête bi man la woo si bureau am jox ma enquête bi te bu may jox enquête bi aussi c' est le fruit du destin cest à moom bu mu koy def defu ko ndax euh, man fii laa dëkk ba xoolee laa dëkk c' est parce qu'il a confiance en moi et il sait que jamais été partial mais nag toutefois saa yu ma mën mënee jàppale nit te yàlla tax dama koy jàppale cest dire tout le temps quand je sais je moo débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice je trouve un moyen de l'aider parce que moi c'est ça mon principe Adji Sarr bu ma ko bu ma commandant bi boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii duma créer problème Kamil baa ngi balaa may commencer en fait damay waat c'est-à-dire man kenn xamee wu ma caaxaan je suis un très bon musulman ma ne ko lu tax ngay poser loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yëg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital Fann quoi ma ne ko ma ne ko pourquoi mu ne ma bu ko yëgee dinaa am problème donc vous vous imaginez nit di porter plainte contre c'est-à-dire le, le, le premier opposant d'un État africain di la laaj est-ce que patronam dina ko yëg est-ce que vous pensez que nit ku conscient dina wax loolu ensuite au cours des auditions bu ñu commencé auditionné ba pare ma ne ko euh, ma ne ko aji jox ma sa carte d'identité xam nga booy jël auditionné nit vous prenez d'abord sa pièce d'identité nga ñëw nga nga nga nga enregistré ko am ah, nga nga enregistré d'abord son nom ensuite vous demandez à la personne de de de vous dire le nom de son père de sa mère et tout ça mais dans toute son audition lu mu wax rek day bëgg a génn di bëgg laaj ma ne ko fii nag bu ñu commencé dañuy dem ba pare. Adji Sarr génnaat Adji après quand fini avec Adji Sarr euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis euh, Sidi que j'ai entendu Sidi bu ma ko dégluwee ba pare ils sont sortis il y a le capitaine Diouf qui est venu me rejoindre au mu ñëw mu dugg si bureau bi ma expliqué ko ce qui s'est passé après mu ñëw si audition mbay bi Sidi Mbay mu bokk si. léegi avec les questions qu'on a posées bu ñu paree mbay aussi il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses mu génn et que capitaine ju génn bàyyi ñu foofu parce que dañ ko woowoon sur une autre affaire léegi Mbaye aussi quand il a fini il a signé le PV il revient vers moi il me dit est-ce que duma si am problème yàlla moo na ma est-ce que duñu si am problème ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na mais y a ma ne ko ici les gens sont impatients léegi quand j'ai fini avec cette fille je suis parti j'ai appelé euh, la patronne mooy la fi la femme qui s'appelle di Hadi Niang ma ne ko madame où est que vous êtes mu ma je suis à l'hôpital de de ma ne ko mënoo ñëw ñu entendre mu ne ma non non euh, mënuma fa ñëw sama doom et là j'ai j'ai accouché d'un enfant prématuré de sept mois donc je suis hospitalisé te il a besoin l'enfant a besoin de ma chaleur donc foog ma nekk aussitôt après gens yooyu je ne je ne je ne tergiverse pas une personne me dit ça que mu ne ma dafa am benn benn situation boo xam ne da koy très déplacé wu j'ai demandé la permission au commandant ma dem fekk foofu ma anta effectivement que y avait mais Ndeye Khady Ndiaye aussi expliquer ma yëpp ñu pare ñu def lépp maintenant on devait convoquer euh, quand on a fini les auditions et tout ils moo expliqué de façon les PV d'audition jarul ma koy wax sénégalais yi yëpp gis nañu ko quand j'ai fini donc là il fallait convoquer l'honorable député Ousmane pour mu ñëw après avoir entendu tous les témoins, fait tous les actes. Je voulais aussi revenir sur un gis nga y a eu des prélèvements qui ont parce que Adji Sarr bu ñu ko entendre ba pare c'est-à-dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour ñu examiner ko xam nga nit bu waxee ne dañ ko violer dañ koy yóbbu souvent le médecin regarde et j'ai demandé à un gradé de l'unité mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko à l'hôpital principal pour ñu xool ko mais il s'est trouvé que au Ils sont partis à l'hôpital général de Grand Yoff. Bien en général on va là-bas. alors que la fille dans son audition lenn loo xam ne nee na moo ko bindee que moom guddi gi dañu ko jël yóbbu c'est ça les gens ont lu mais dafa dem ñu yóbbu ko foofu. on l'a mis sur une table ñu xëccal ko ay affaire après def ko ci affaire dëj donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il n'est pas il n'est pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable c'est-à-dire ñoom dañuy def d'abord réquisition parce que après xamoon loolu fu mu jógee donc ça c'est une qui peut être remise en cause en tout cas à la section de recherche connaissant le commandant Abdou Mbeng et toutes les personnes qui travaillent là-bas personne jamais venu à la SR en tout cas à ma pas à ma connaissance dañoo di mais vous aussi vous vous imaginez quelqu'un vient vers vous porter plainte gis nga ñun SR nit day nii fekk xamuñu la nii la dañoo sàcc léegi sama léegi léegi ko On part, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, après violer, c'est violer la personne humaine. Quand on vous dit que je suis violé, ça c'est important. Toutes les fois où quelqu'un s'est présenté à la SRML et demandé me violer, le commandant a pris toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte, tel qu'il le faut. Mais C'est pas on dit gradé. Wow. Gradé, c'est un chef. waaw lépp waaw boole ko xam nga comme. pourquoi ci diggante bi yóbbu hmm. comme cette fille là elle était innocente. xam naa il a fallu faire croire kooku moo ko kooku moo xam li mu dal li ko daal ba pare. parce que toujours c'est ça c'est toujours dans les manipulations. que kenn kenn moo ko war a wax ne médecin bale xam na lu xew nañ ko yóbbu foofu moom mun na def. sinon nous normalement on amène à l'hôpital principal. donc pris la convocation. j'ai pris mon véhicule je l'ai écrit d'abord un SMS ne ko bonjour honorable député Ousmane Kourou je suis le capitaine Touré officier adjoint à la section de recherche on a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui je me rappelle pas cité Gorgui waaw mu jox ma adresse bi le lendemain je l'avais dit que je viendrais à 10h. À 10h, je suis pas venu. Il m'a réécrit un message pour me dire Monsieur Tireur, à quelle heure vous Je dis que je suis en route. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité convergée, je lui ai remis la convocation qu'il a déchargée. Je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ne ah, la elle a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de mu ne ma ah j'ai informé le procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonal bi bu fekkee ne damay fen yal na ma yàlla toroxal procureur bi ne commandant yow sa xolu yurmande bi bu mu taxaw il faut pluto faire appliquer tes principes de gendarme waaw comme prévu le commandant m'a dit exécute les ordres je suis très loyal à mon moom mi xam na ko je suis parti j'ai exécuté je suis à la dame je l'ai même pas informé ah je ma ko nee kaay bu mu ñëwee sama bureau je l'ai pas dit comment naa nee na jàpp la dama ko nee vous allez placer en garde à donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko il devait venir et pour pour accéder à lui c'est-à-dire c'est pour vous expliquer en fait je ne parle pas de complot je n'ai rien on a demandé d'arrêter la dame Et quand on a demandé, quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié la garde vue. Mais avant la notification de la garde vue, dès qu'on aussi, je l'avais écouté quatre fois. Mais à titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que. Mais toutefois, je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire. Pour vous la madame, moi j'applique les ordres de mes chefs. Mais je vais vous te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat boo xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains humains xam naa ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Bassirou sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il est venu dans mon bureau je l'ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête. Il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification de la garde à vue, comme je vous ai dit, j'ai appelé Maître Baldé, qui la, la dame a demandé, après l'audition et tout, la dame a demandé à aller à l'hôpital. Pour Nampal Domam. Hamga Domam, c'est un prématuré. C'est un prématuré, donc euh, le docteur lui a dit que l'enfant ne pouvait pas euh, vivre dans lait artificiel. Donc il fallait le lait maternel sinon day day am problème vous avez compris donc je lui ai dit donc allons-y maintenant dès qu'on est arrivé à l'hôpital j'ai dit à l'avocat que cette dame si elle se sépare de son enfant l'enfant va décéder il faut qu'elle attache l'enfant avec elle fu muy dem na ko yóbbaale te bu ko takkee kenn du ko yóbbu pour moi c'est ça la justice quoi finalement l'avocat <laughs> est parti le lendemain pour dénoncer et la presse a mis la pression sur l'État les gens ont parce que dama bëggoon aussi leeral que man je motivation politique gis nga Mohamed man même université mosuma am liste mosuma dem vote man bu may inscrire liste électorale c'était juste pour avoir une carte parce que avec la carte d'identité CEDEAO il fallait il paraît que mënoon nga inscrire en même temps. cest Vous savez, quand vous cherchez, moi je suis un militaire comme je vous dis, demande stratégie. Quand vous voulez un résultat, il faut demander plus grand. Même quand vous voulez demander du carburant à l'État, vous voulez 5000 litres, demandez 10 000 litres, vous aurez vos 5000 litres. Donc quand ils demandent la démission, avec ce que je sais, ils savaient, que, ils avaient peur que la jeunesse me suive. Ma nous suivre. Donc ça a joué. Je ne pas dit que je suis la cause. mais c'est que ça a joué. léegi moo ko benn delluwaat euh, ginnaaw tuuti balaa ngay wàcc ci. waaw. Adji Sarr bi mu lay la. Hmm. sama patron Ba du ko yëg. waaw Sidi Mouhamed tam ne la. Hmm. Ba ci am problème. waaw léegi seen place ginnaaw audition ci yow naan la ñun ci am problème. waaw. maanaam kon daal dafa nekk nit ñoo xam ne dañ leen doon utiliser lañ xanaa. en fait en tout cas moi c'est la première fois que ñu violé nit mu ñëw sama bureau porte plainte et après muy dellu di ma naan est-ce ci am problème. comme ni ma la wax li non li ma tax a jóg c' est pour diir xam nga Sénégal fu ñu toll actuellement ak cause de cette affaire y a eu de personnes qui sont mortes y a eu de problèmes gis nga pourquoi j'ai demandé à ce que les personnes responsables démissionnent lii moo tax. pour ma complot la quoi. mënuma mënuma wax complot comme ni ma la wax encore une fois moi j' explique ce qui s' est passé gis nga bu ma demee ba remettre sama démission donc j'ai besoin. d'expliquer que nit ñi yegg ko après je vais me rendre à mes autorités militaires ils vont la procédure me concerne. Eh ce que j'ai dit je ne regrette pas et je l'assume je n'ai problème. gis nga yaakaar naa ne man bu ñu may jàpp c'est-à-dire j'ai pas peur que ñu jàpp ma gis nga formation bu ma def moo gën a métti ay jàpp. tous les responsables dans cette affaire. une enquête doit être ouverte ñooñu ñëpp ñu jàpp leen le procureur mooy li ma la wax comment on peut. nit wax la ne xale bi sept mois la am nga ne ko non yow sa xolu yurmande bu fekkee ne c'est un procureur de la république xam nga on est un procureur de la république pas un procureur du président la république bu fekkee procureur de la vraiment yaakaar naa ne bu ñu la waxee loolu war nga nangu mais nga wax loolu ba ñu dem hôpital on a créé un scandale là-bas hôpital bi je tiens à tout ce qui était à l'hôpital ba foo xam ne des enfants sont en réanimation là-bas ñu nekk fa di indi fa ay coow. c'était vraiment triste. ñan ak ñan ñoo war a démissionner pour yow. à mon avis xam nga nag loolu damay bàyyi sénégalais yi juge te man wax naa li may wax c'est-à-dire sénégalais yi bu ñu fekkee ne que man li ma wax nii ça vaut la peine que le procureur de la république démissionne ou que le ministre de la justice démissionne yaakaar naa jar naa vous savez le ministre de l'intérieur moi je considère que c'est un collègue du ministre de la justice normalement war na xam luy xew.

changé am. non am na lu des y a des le carnet de déclaration am na affaire yoo xam ne on l'a pas mis dans le PV ça je le c'est pour l'honneur de la gendarmerie en fait gis nga la gendarmerie dans cette affaire est restée debout jusqu'à la fin vous savez si la gendarmerie avait avait avait fléchi le pays allait dépasser ça donc nous on a été vraiment c'est-à-dire aujourd'hui je me considère comme démissionnaire mais il faut accepter

que j'ai eu un contact avec Sonko wala avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats moi je suis officier de gendarmerie je suis un enquêteur am na par exemple maître Tall vous vous rappelez l'affaire de la drogue là les 675 kilos c'est maître Tall qui était l'avocat du blanc donc lui c'est normal qu'on entre en contact parce que c'est moi qui prenais l'audition du blanc kooku boo gisee numéro am sama téléphone c'est parce qu'on parle je demande je te dis tous les sénégalais waxuma seulement la gendarmerie ou la police tous les sénégalais ku am preuve que en contact ak Ousmane Sonko wala un de ses ko produire. manipulation wax loolu de manière très claire. Euh, encore une fois. Mm-hmm. damay bàyyi sénégalais yi ñu tirer ay conclusions c'est-à-dire waruñu làkk suñu réew. si ci am problème. waaw si yow dañu loolu laa la wax. comme je l'ai dit au départ moi j'ai établi plus de 1500 procès-verbaux c'est l'affaire la plus simple de toutes les affaires que j'ai faites cest moo tax ma ne la boo bëggee xam man maay kan il faut aller écouter les gens avec lesquels je travaille ñooñu mën nañ la expliquer kan mooy capitaine Touré moi je ne suis pas violent. c'est moo tax comme ni ma sama vidéo boobu mu fuite tout ko des mu appelé mu ne ma ah <laughs> man leen ah, de mais comme je vous dis gis nga booy boo bëggee dem fenn euh, bu ñun ñi xam ne ngay dem. doo fa yegg moo tax yow obligé. ah léegi waaw boo dem après SR c'est-à-dire moi je pense c'est ça qui sécurise ma vie comme nit ñi dañ may topp di xool ne est-ce que xam naa dara xamuma dara je me dis que bu nit ñi xamee ne man dinaa wax dara mun nañ ma rey donc léegi ma wax. benn yoon di ma xam gis nga nit ñi di am na ku ma ku ma je regardais je je je un commentaire je vérifiais les commentaires ma gis ku bind ne capitaine bi il a peur il est à Touba. vous savez quand vous êtes porteur d'un message rien ne vaut dalee affronter la mort le général de Gaulle quand il appelait les Français à résister il était à Londres il n'est pas venu se battre pourtant il est arrivé à convaincre les Français donc bu fekkee ne yaakaar nga ne yow li ngay wax mun na changer dara jarul ngay dem xeex toogal rek nga wax ko. bu fekkee changé na baax na bu fekkee ñi ñi gëmuñu la nga dem toog. mën lu ñu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a sur des principes yoo xam ne mosul bëgg ma wàcc la vérité c'est-à-dire li may def ni si elle qui a qui me l'a donc ce kii fait maa ngi koy massaw bu baax waa je sais que actuellement il paraît qu'elle a même organisé ay jàng kaamil foofu pour que je puisse vraiment yàlla jàppale ma mais je voudrais que quelqu'un que si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin c'est-à-dire gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on la SR commandant bi woo ma ne ma demal def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma re bu ma reconvoqué demee wala nit interview moom feneen j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré d'avoir servi pour ce pays